asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi tedd yi ak bokki taalibe murid yi ñu toog ci kanamu kilifa gu tedd yi di Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene jure jëm am ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu woon may ko kàttan ak wér ba lépp mu mottali ko nu kawe njortam ñu toog fii nag fa yéene jotle ak kàddu yu néew di jéem a fexe ba ni mu ko santaanee donte suñu làmmiñ lottu na ci mën koo jotali ñu jéem ci ba fa suñ kem kertal ñu jéem ko mottali ci yéene kon ci ndigalu sëriñ bi ndax wax ci kanamu sëriñ bi dafa diis ndax koo xam jataay bi mu toogee xam li mu doon boo yëkkati ci turam faw mu diis yow kon ñi mu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk réew mi di nuyu bokk àdduna si di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor nga xam ne ñëpp xam nañ yitte ak positif bi nga xam ne def na ko ci ngir fas yéene ko dundale ni ko lislaam santaane dàkk ci ni ko Serigne Touba da dundale mu yóbbante ma nag ay kàddu jëme ko ci taalibi jul murid yi nga xam ne ñoom la sañe digal sañ leen tere kon kàddu yi mu ngi jëm ci bokki taalibi murid yi ndax ñoom loolu rek la seq ñoom di ko jëmalee ci mboole mbokk jullit boo xam ne yàq mimma yaqbalu nasihata min axiil muslim kon mooy kàddu yi nga xam ne jëme na ko ci yéen kàddu yi nag mooy ginnaaw bu mu leen sante ci li weesu lépp mu am tuuti ay leeral yoo xam ne da ko fas yéenee jëme ci bokk taalibe yi ngir ñëpp mooy santaane digle ak tere loolu rek nga seq ak nit ñi taalibe yi itam li ñu seq ak yow mooy sami'na wa ata'na loolu rek la lay am seen digg ñoom mooy lépp loo xam ne sëriñ bi santaane na ko rek boobaa amatul li ci tànn la maa kaana wa maa kaana li muminin wala muminatin iza qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al xiyaratu min amrihim kon lépp lu mu santaane rek jëfi ndigale lañ ci war a def santaane bi nag mooy leeral rek moom fi mu toll ngir xam ne lépp loo xam ne dégg na ko muy loo xam ne war naa andi ay rëngi-rëngi war a andi sens-sensu ci biir réew wala adduna si fam ci nekk ak fam bëgg ñëpp ne fa nee na moom fi mu nekk fii la yéen bokk jul yëpp ne fa fa la yéen bokk taal bi yëpp ne fa mooy ñëpp maase ca xam ne lépp loo xam ne luy indi fitna la ci biir réew mi na ko ñëpp wattandiku te sax jàmm te xam ne sëriñ Touba ci loolu la nekkoon ci loolu la loolu la santaane woon ndax lu ne mas lu ne def nañ ko ko ba tàyyi waaye lu ñu ko mas a defit li muy wax mooy jégal naa leen kon Serigne Touba na xam ne du ko ñuy xoolal ñuy xeexal li nga xam ne nag mooy li nga xam ne bëgg na ñëpp xam ko muy lu war a leer ci bokki jullit yi nee na eh, daa bëgg ñëpp maase ci xam ne nit balaa doon ab taalibe day doon jullit ba noppi. nee na kon li ñu war a njëkk a góorgóorlu mooy fexe ba sunu njullit ba sunu njullit wér ba sunu njullit wéree suñu taalibe dooru mën a wér waaye nee nit du du mën a doon ab taalibe te doontu jullit kon nag nee na fii lislaam tollu ci ràgg nee na ñun tëluñu lenn lu weesu. fexe ba lislaam jëpp nekk yoon say waaye lépp loo xam ne lu koy xajjal neen moom tëddul loolu te fas yéene na bëgg taalibe bi yëpp maase ci nekk la ko foofa xam ne daal eh, li war a nekk yiteem yite ñëpp mooy fexe ba lislaam ji ni ko rasulullahi digle woon nga xam ne leer na nañ ñi nee na amul lenn lu ci lënt nee lu ci lënt rek ci doomu aadama la waaye suñ borom li mu santaane wàcce ko ci alxuraan lenn lu lënt néew ci kon nag na ñëm ñëpp maase ci xam ne ndegam men lënt amul nag kon li ñu war a def góor góorlu mooy fexe ba góor góorgóorlu ci lislaam jër taalibi gi wér sëriñ Tuubaa itam ñu xam ne dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam doon gi mu doon rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax itam bañ na ko ba dafa tudde boppam xaadimu rasul xaadimu rasul nag mooy jëw nit ñi rasulullahi sallallahu alayhi wa kon lépp a tàbbi ci biiram kon mboolem tariixa yëpp itam eh, na ko sëriñ bi daa santaane ku ne xam ne ne sëriñ daana joxe wérdu xaadir daana joxe wérdu tijaan ak astasaliya ak yeneen yi ci des yëpp kon loolu lim ci jëf wax ko ci laaj yi nga xam ne gouverneur général laajoo na ko ko itam ne ko ñan ñoo yoonu murit fu yoonu murit juddoo euh, fan mooy barabam lépp géntoon lislaam daa waxoon ne képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi euh, xam ne ci ak fu julli nekk itam fa la euh, fu julli ne rek fal ñoo di taalibeem kon Sëriñ Tuubaa wutu wutu doon ak xàjjale ci diggam ak kenn koo xam ne mbokkum jullitam nga ci loolu itam fonk gi mu fonkoon rasulullahi sallallahu moo tax képp koo xam ne fonk nga Sëriñ Tuubaa itam na nga xam ne boo bokk ci njabootu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rek bokk nga ci njabootu Sëriñ Tuubaa waaye nag boo dugg ci njabootu rasulullahi wala euh, amoo xamoo lay rasulullahi sallallahu loolu doo maa tàbbi ci biir ndax Sëriñ Tuubaa loolu moo doon doonoon muhimmam kon loolu na ko ñëpp xam médaille bi nga xam ne bëggoon nañ ko ko takkal itam la taxoon sëriñ bi gànt ko de waxoon ne médaille bu ñu ko ko takkalee loolu day eh, firndeel ne xajju xajjal ko di am ci biir islam kon nag sëriñ bi nee na loolu kon nee na na ko kilifaam yu jëkkee defoon ndax sëriñ Tuubaa ko santaane woon kooku fi ma sa nekkal ku ne itam ci lii nga nekk xam ngeen ne 1979 80 bi nga xamee ne yu mel nii xewoon na te booba sëriñ Abdul Ahad Mbacke moo fi nekkoon euh, sëriñ Moustapha Bassirou ñëw àndoon koog moom ci xew-xew bu meloon nii Cheikh Abdul Ahad Mbacke taxawaay bu mel nii la ci amoon mooy xam leen sëriñ Touba du ku ñuy xolool du ku ñuy xeexal ku ñuy gëm la ku ñuy toppal ku ñuy yaakaar la nee na kon moom itam na xam ne foofa rek ca la nekk te fa siinoo ko wàcc nee na bu dee ci diggam ak bokk julli itam mooy al uxuwatul islaami gi itam ñaan da koy fetli ndax loolu la fekkoon rawatina nag eh, Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy fi mujj nekk ci xalifa Serigne Touba ñaana fam ci nekkoon rek ci yaasal ko ci digg ma bokk jullit yi Serigne bi nee na nee na loola képp la fas yéenee wéyal ci mboole boori kër këri diine yëpp fas yéene lépp àndandoo nekk benn nekk wenn say lépp lu ñuy def eh, mu mu mu dëppoog lislaam lépp lu ñuy def tam mu dëppoog loo xam ne. genn luy nuroog ak juyoo di ci am fa foose rek la fa séenante tàngam nee na kon mi ngi ñaanal Cheikh Sidou Moussa suñu doom dolli ay leen taa suñu ci barkeem kon nañ xam ne yoon wi nga xam ne waxoon na ko muy ñëpp dégg ko nee foofu rek la ci nekk te loolu la fa séene yeesal li ci dolli ko waat nag mooy jëm ci taalibe Serigne Touba sëriñ bi nee na mi nga xamante taalibe yëpp na lim yéene boppam rek la leen yéene te moom wax na boppam fi mu jëm wax na it ni mu fa séene dara desu ji nee nag nañ xam ne yoon wii di yoonu Serigne Touba Serigne Touba da ko uh, sanc ci yar ak i teggin nee na kon nag képp koo xam ne yaakaar nga Serigne Touba na nga xam ne lépp looy jëfale Serigne Touba yar ak i moo ci war a kon nee na loolu mi ngi koy diggal taalib yëpp ne ñëpp xam ne buñ tënkoo ci ndigal Serigne Touba uh, ne ne ci yar ak sax ci taalib bi mbooleem liñ bëgg danañ ko am bu fekkente ne nag wàcc nañ ko nag boobaa nañ xam ne lu leen ci dal ñoo ko rek seen bopp. kon nag nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom dolli jàmm ci réew mi boole xoli jullit yépp mboolem yi nga xam ne ñooy kër lislaam yi ci biir réew mi itam suñu borom gën leen a boole ndax Serigne Touba waxoon na ne yaar rek ka fi nekk innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna shaytaan lakum aduw mu ne ak nax la mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag innama mu ne tey gi ci innamal mu'minuuna ixwatun nag ndax gi ci inna inna inna shaytaan lakum aduw mu ne ko yàq kon nag nee na nañ xam ne eh, lii di këri lislaam yi eh, defar ci ba jëm cee defar rek moo ci am waaye yàq ci moom kenn mënu ko ndax lu leen jiitu la te kilifa yi fi nekkoon fàggu nañ ko ba noppi kon nag moom ci liggéeyam ak li mu fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa fas na ko yéene ànd ak bokku jullit yi fas ko yéene ànd ak bokku taalibe te teg teg ko nag lépp nag ci sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam teg ko ci ndenkaay na Sëriñ Tuubaa te fasu ko fasu ko yéene wàcc te fas ci fas ci yéene dugal dara fas ci yéene génn lenn loo xam ne lu bokk lu ci Serigne Touba gén dugaloon la wala loo xam ne Serigne Touba bëggatoo mu tàbbi ci biir kon nag ngir bañ a guddal rek Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp du gërëm ñëpp bu fekkee am